di nuyu di len euh, sante ci déplacement bi nga def tay bi ngeen def tay pour mën a ñëw assister ci rencontre bi moy ndaje bi dir quoi di organiser at bu nek ak euh, woy taskatu xabaar yi bu ñu jublo ci 4 avril donc bon maa ngi tudd colonel Moussa Koulibaly, man maay directeur de l'information et des relations publiques des armées maanaam pas. DIRPA DIRPA nak mooy euh, euh, structure de communication bu forces armées donc ce ndaje bi tay lu ko waral euh, pour que les xaar xabar ñu DIRPA ngir ñu mën leen jox ay médiatique 4 avril donc lool mo donc euh, je que préciser thème retenir la force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles donc euh, madame euh, oui, taskat way ni ni ni ressources naturelles donc lool donc thème boobu choisir donc c'est moy point bu njëkk bi deuxième point bu njëkk bi manam donc euh, le sànq euh colonel Saliou Ngom won déroulement cérémonie bi donc cérémonie bi ren di day fay day a commencé 9h lay commencé 9h30 manam le président di ñëw ndaxte euh, d'habitude président de la république 10h lay yexi ren 9h 9h30 lay yexi bon jël nañ ay matuwaay pour que cérémonie bi mo gëna gatt par rapport ak euh, yenen année té ci koor lañ nek ak ci karam lañ nek donc lolu aussi ci disposition yi ñu yi ñuy jël waaw li ci dess nak mom ma ngi xaar de ay questions yu gëna précises pour mëna pour mën leen jox ay léral ma ngi leen di donc ren euh, manam retraite flambeau du am du am Dakar waye mëna am ci yenen région yi donc lolu mom décision la bu autorité yi jël euh, essentiellement pour euh, ay raison de calendrier et d'agenda. donc euh, non laa leen ko mën expliquer donc loolu moo am euh, renko retraite flambeau du am ren loolu bokk na ci nouveauté qui ci ci particularité yu waaw lu bees bon ren amul invité d'honneur bu ñu bu ñu ngir bon aussi xam choix la ci ci ci autorité yi mais c'est pas forcé que nous am aussi parce que c'est une fête nationale on na invité en particulier mais euh, pour que bu fi am représentation diplomatique je ne un nga représentant qui est place Les diplomates aussi ils sont invités à la tribune tribune d'honneur donc Bangfanek. donc je pense que euh, colonel Saliou Ngom en civil ak militaire mais li qui est... dina am. Euh, défilé civil manam école yi communes aussi un mouvement de jeunesse comme ASP euh, yu aura défilé de même que école, euh, de même que école, écoles et écoles Bon, il communes a bon dina également défilé aérien bon a am défilé militaire à pied défilés défilé militaire défilé motorisé donc défilé militaire et paramilitaire donc dans une guise armée gendarmerie police nationale eaux et forêt administration pénitentiaire ak bépp euh, tak der bi am Sénégal daañu gis seen seen seen représentation ci ci défilé bi. waaw lu jëm ci euh travaux BRT yi euh, jàppaleen amul ben galancor bu nara am ci défilé bi ndaxte jëpp euh, jël nañ suñuy matuwaay pour que liggéey bi mën a mën pour que fiñu wara jaar fépp fuñu soxla pour défiler fa wala pour stationner fa loolu yëpp pare na donc euh, comme zone 1 mi nga xamante ne moom mooy organiser cérémonie bi euh, liggéey nag yeneen structures yi mooy waa administration ak entreprise yi di liggéey foofu donc fi mu ne nii place bi pare na amul le benn benn benn tiitaange bu ñu ci war a am lépp luñ ci lépp bépp bépp bépp lépp lu ñu lu ci war ci liggéey bi defar def nañ ko pour que place bi mën a pare déjà comme nous l'avons dit, la cérémonie de RENDI dafa te carême donc si na euh, chef de l'État muy avons 9h30 la cérémonie est gën a euh, commencé aussi mu se donc euh, ci choisir que format yi ñu gën parce que aussi koor est aussi yombut pour nous. donc li gën mooy euh, c'est bañ de gudd trop waaw ay consultant dina am peut-être que duñ mën a jox consultant duñ <laughs> consultant euh, dans la limite des des, possibilités en tout cas euh, mën ngeen def demande tant que c'est possible daañu leen jox consultant non mais en fait c'est pour le direct mais ça a toujours été comme ça n'est-ce pas bon en fait le film bu ndaw 7 minutes à peu près 7 à 8 minutes donc taxuko Euh li ko euh, résumé euh, li waral thème bi euh, muy pénitencier muy sapeur pompier muy armée muy gendarmerie muy ku rôle bu muy bu mën a illustrer thème bi waaw léegi nag fi dañoo def benn film mu ndaw bi nga xamante au moins public mooy invité d'honneur yi le chef de l'État son excellence euh, monsieur Macky Sall et les invités d'honneur agit it bépp sénégalais wala bépp étrangers bu ñuy seetaan ci ci monde bi ñu mën a xam à peu près lu nous ñu choisir thème bi loolu moo waral film Bob. donc ben film bu gàtt la mais au moins pour mën a euh, rôle ku nekk. Euh, structure bu qui ci ci ci ci ci firndelu non du innovation particulière parce que mosoon na am Mousson mosoon na am musique principale des forces armées mom le mom le sénégalais gëna xam euh te it euh, xam naa ne hmm, euh, seen hmm, li liñu teug tax ñu bëri aussi gëna gëna bëgg armée donc Rendi, depuis le 1er avril c'est devenu bataillon de la musique des forces armées donc loolu lan moo ko waral euh, parce que léegi euh, armée sénégalaise dafa gën a développé bon structure bi nga xamante musique principale aussi moom dafa gën a développé léegi dañ ko def bataillon pour mu gën am pour accompagner développement boobu essayé de comprendre donc euh, pour pour pour mieux accompagner li ñuy monter monter en puissance mais également surtout pour que bataillon bi gën a am structure bu ko mën a mu donc c'est un bataillon mooy bataillon mooy structure administrative la ak unité euh, loolu moo waral donc changement boobu depuis le 1er avril la ren ji ñun li ñu gënal mooy ku nekk signé yéen am carte nationale de presse parce que loolu mooy permettre aussi ñu gën a facile mu euh, identification bi gën a yomb bon ñun dire pas euh, événement bu mel ni dañuy distribuer ay badge mais badge aussi pour ñu joxe ko il faudrait que ngeen indi document yi ci ñu mën a ñu mën a ci ñu yi nga xamante ne mën nañ ci sukkandi sukkandiku pour mën leen ko jox loolu moo waral euh, colonel Saliou Ngom yónnee na euh, ay mail pour que euh, ngeen mën a xam yan document la ñuy ngeen war a fournir pour ñu mën leen jox badge bi mais dans tous les cas yónnee leen yónnee yónnee leen yónnee leen ñu seeni seeni demande ñu étudier ko bu fekkee am nañ suffisamment d'information pour jox leen carte carte badge bi daañu leen ko jox mais li ci am solo pour mooy na ñëpp xam ne bon lu mel ni 4 avril aussi mënuñu ko ubbi ku ñëw taxaw ne journaliste la rek ñu bàyyi nga la ko dugg loolu lool mënta ne te te loolu xam naa ne yéen seen bopp du ngeen ci ànd <laughs> n'est-ce